Sidya Ndiaye maa ngi lay nuyu yow yaay kon vice-président bu Alliance And Gueusseum di syndicat boo xam ne dafay taxaw ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wérgu yaram ñu gis ne nag jamono ji àdduna nag dafa am lu ko lëmbee di feebar bu ñu naan coronavirus te ñu gis ne nag feebar bi mu ngi gën di law ndax ragalu leen mu dugg fii ci senegal waaw xam nga ni feebar moom mel noonu ay virus dafa métti eh, dafa dafa yombul pour xeex ko donc kenn mënul wax ndax ni ñaa ngi dem bi ak dëkk bi population yi loolu moo ko indi xam nga ni tali li fa xew mooy dafa am malade boo xamante ne ñëw na mais kenn contrôlé wu ko ba mu dugg ci réew mi te tey ñeenti région def nañ leen en quarantaine donc bu ñu wax ne du fi ñëw la preuve c'est que au Maghreb am na déjà ay cas yu signalé foofu ba tax na ñu ñoom ay néew doole lañu war nañu góorgóorlu ba def accent bi ci li nga xam ne mooy prévention maanaam lépp loo xamante ne war nañ ko jëlee ay jumtukaay ay information pour séddale ak population yi ak informer population yi lan mooy virus bi ak nag lay tëddee donc loolu aussi dina bokk ci moo tax may lu le fait que euh, Institut Pasteur defoon na fan yii bii benn rencontre boo xam ne ñu ngi ciy doon wax donc ça veut dire que conscience am na au niveau des autorités donc des rek ñu boole ci population yi parce que population yi seen bopp ñoom am na ñoo xam ne surtout zone frontalière bi ñi nga xam ne dañ ciy bu ñu leen boo xamante ne cas suspect ñu mën a teel a avertir autorités yi pour jël seen matukaay parce que ñu réew yu bëri bu pour cas yu mel noonu amee dañuy tëj seen frontière mais comme pour le moment euh, dara xewagul euh, mën nañu envisager aussi que loolu bu fekkente ne dugg na war nañu jël matukaay ba mu mat sëkk donc loolu moo tax ñun ñu neen bon dañu war a aussi boole travailleurs yi ci li nga xam ne mooy formation pour ñu sensibiliser leen parce que bu problème bi posé wu ñoom ñoo nekk en première ligne. kon tey yaakaar nga ne li nga xam ne moom mooy euh, feebar bi parce que Italie par exemple ñoom tëjuñu seen frontière. feebar bi mu ngi law di fa am nit ñi di fa jóge di dem feneen est-ce que Sénégal waru jël matuwaay ngir tëj tamit ay frontière am wala. non xam nga Europe lu fa nekk ñoom am nañu moyen moyen yoo xam ne ñun amuñu ko donc ñun dañ koy envisager rek parce que am na loo xamante ne doo ko envisager comme solution. bu Ebola amee fii benn benn cas dugub bi moom la ñu mujjee woon def mais comme pour le moment pour ñu bañ a créer panique bi. ci population bi aussi mais autorités yi war nañu prévoir loolu yan zone ñoo facile d'accès pour que bu problème bi amee ñu envisager parce que question de souveraineté nationale loolu moom tëj frontière moom question de souveraineté c'est à un niveau qui nous dépasse à un niveau supérieur parce que autorités yi ñoo am information li nga xam ne moo leen war a tax ñu ne dañuy tëj frontière mm. mais doo xëy rek nga tëj frontière parce que dënd ak biir bi dafay lënd mm. donc ne loolu moom il faut ñu envisager ko parce que c'est pour la survie des populations réew boo xamante ne euh, loxo bi batul ginnaaw dafay góorgóorlu ba li nga xamante ne problème bu amee mu saafara ko dañ jël ci commencement bi comme ça nit ñi bañ am trop trop nit ñi bañ a am euh, situation boo xamante ne affaire bi day dugg fi law te kenn du ci dara. yéen dem ngeen ba ne sax suñu système de résilience dëgërul kon mu mel ni da ngeen di artu que ni ñun peut-être artanuñu loolu est-ce que loolu du tiital tamit euh, gën a tiital nit ñi. non du question pour tiital nit da ngay wax dëgg. dafa boo waxulee dëgg yaa ngi ci leneen donc ñun dañu système bi fu mu nekk nii virus yu mel nii da xool réew bu toll comme Chine ak potentiel bi mu am xam nga ni Chine bi problème bi amee fukki fan rek tabax nañ benn hôpital ça veut dire que dëgg réew boobu am na doole am na moyen am na dund jumtukaay mais ba léegi affaire bi mu ngi law ñun ñi nga xamante ne suñu ah, suñu loxo matul dina am. dañu war a teel a jóg saafara mbir mi ci li nga xamante ne mooy information sensibilisation ak vigilance yoo xamante ne autorités frontalières ak ñëpp ñëpp surveiller ko di contrôler aussi ñi nga xam ne ñu ngi dugg mi parce que loolu aussi c'est un minimum ah bu waa ne ñëwagul ah, comme ni ma la ko waxee Italie benn moo fa xew dugg rek kenn contrôlé wu ko mooy indi problème donc frontière bi aéroport bi surtout war nañ góorgóorlu ba nit ñi def ay test ñu xool lan moo kii loolu c'est un c'est un problème bi dafa garaaw affaire bi dafa garaaw garaaw boo xam te waxuñu ko pour tiital ñi mais yaa ngi ko gis ay ñaata moo ah bu duggee ci réew ci même Iran. Mm-hmm. ah fan yii dégg naa ne Iran aussi affaire bi commencé na te gars yi foofu commencé nañ ci frontière Pakistan bi daf lay ëppaloo. Mm. te loolu ñaan ñu ko yàlla ñu ñaan yàlla toujours. mu dimbale Sénégal ak Sénégalais yi ñu ngi ñaan yàlla aussi ñi ñoom ni réew ñoo xamante ni am nañu ba pare feebar bi yàlla jàppale leen dañu mënu koo at cest dire que c'est pour la la sauvegarde de l'humanité mm. parce que organisation mondiale de la santé ci boppam moo mu ngi toog di ko surveiller di ko surveiller pour que bu laajee ñu déclaré ko pandémie ñu def ko pandémie su ko defee réew yëpp dañu mobiliser ñu guerre virus boobu ay recherche la laaj nag mm. recherche mooy centre laboratoire yi ñoom ñooy xool cas yi nga xam ne déjà naka lañ koy attaqué pour ñu enrayé ko comme nu mu fi amoon la France bu mu amee fii ak Ebola yooyu yooyu dafa am ñoo xam ne dañu xarañ ci combat bactériologique ak virologie ñooñu la ñuy jël ñu teg ko te dama ne yaakaar ne ñun fii c'est vrai am nañu comme structure comme parce que seen liggéey bi rafet na ah, am nañu capacité am nañu technicité mais war nañu góor góor lu ba. affaire bi bañ a ñëw daal moo gën. autorité yi ñoom ñu ngi rassuré di dalal xelu nit ñi d'ailleurs sax chaque fois dañuy def ay ndaje ak taskatu xibaar yi di def ay mise à niveau yooyu mais ci côté askan wi eh, gis nga ni est-ce que askan wi ñu ngi jël matuwaay bu baax ndax comportement yi ñu doon am ba léegi mooy am euh, donc côté hygiène bi nuyoon te beeg yu demee noonu daal. am nga réew am nga réew boo gis rek culture bi la. Mm. fii Sénégal boo boo nuyu leen ci loxo bi ah, dafa mel nuyu loo boo nit dèjà bu la joxee ndongo waaye nga bañ koo baale sax da lay indi problème donc loolu ay ay acte acte culturel la yoo xamante ne suñu réew loolu mu ngi fi mais autorité seen devoir la li ñuy dem nii dañ koy rafetlu dañ ko war a continuer ñu gën a yaatal affaire boole ci ñeneen maanaam acteurs yëpp acteur pour que vraiment ñu ñu ñëpp ñu aar seen bopp loolu mooy dëgg mm. donc ñun mënuñu lu dul encourager autorités yi ñu dem au delà de certaines rencontres de sommité ñu dem ci base bi ah maanaam ci population yi boole ci ñëpp pour que ni ñu am des bons comportements maanaam mu ngi jógee loo xam ne sifflet la ñëpp jóg ci taxaw ba ñu enrayé. jar na sax def ay caravane ak yooyu pour. vraiment dugg ci gox goxaat yi lu lépp lu ñu mën a utiliser comme moyen d'information. Hmm. war nañ ko mën a tey réseaux sociaux yaa ngi fi presse baa ngi fi caravane yi et cetera et cetera yooyu yëpp mën nañ ko envisager. Hmm. amul loo xam ne dañ koy xeeb parce que tey nga ko moo gën demee nga war a def ay milliards yi amuloo milliards dugal xam ne fii la donc loolu moo tax ma ne toujours daal moo gën. Mm. donc vraiment ñun ñëpp ñu ngi encouragé autorités yi continuer li nga xam ne moom la ñu commencé mais mbir mi euh, mu wàcc yi. comme ça ñooñu ñu mën a aar seen bopp. yaa ngi wax aussi nañ ci boole personnel de santé bi tàggat ndax ñoom la ci nit ñi ci ñoom la ñuy jublu bu nu jaaxlee. waaw waaw il ñu tàggat parce que ñoo nekk en première ligne. xam nga bu affaire bi ñëwee doo daw sa hôpital bi da nga koy dem. di faj nit donc ñoom aussi war nañu dèjà présent cibler les structures hospitalières ba pare cibler aussi catégorie personnes yi nga xam ne ñoom la ñu war a tàggat pour que bu problème bi ñëwee ñooy mën leen jàppale. Euh, pour jeexal dañuy wax ci seen i problème ànd gësëm alliance ñu gis ne fan yi xaw ngeen nekk ci tekk tekaaral <laughs> ndax da ngeen am gain de cause ci li ngeen doon xeex wala nu mu demee noonu. <laughs> waaw amoon nañu gain de cause ci li nga xam ne mooy renouvellement contrat yi euh, gouvernement bi comme ni ko président góorgóorlu na ba contrat yi ñu renouvelé ko mais question centrale yi muy région indemnitaire ba léegi dara xewagul te question transversale la parce que du ñun rek fonctionnaire yëpp lañ concerné institut yi bu fi nekk la ñu ne dañ ko dafa war a dakk donc ñun fan yii ñëw ànd gësam comme def na un an de pause dana reprendre activité bi rentrée syndicale boo xamante ne ñëpp parce que di fois na leen ci woo ngeen ñëw xool ne parce que dañuy def dañuy jël opinion bi à témoin surtout que période bii xam ngeen ni période bii période bu sensible la ah ñu ngi wax coronavirus et cetera donc war nañu éviter lu yëngal santé parce que bu ko yëngalee rek loolu ay jafe-jafe la indi pour askan bi te ñun ñoo ñëw jóguñu pour euh, loolu askan bi ñun lépp lu ñuy def rek dañuy teg jël opinion bi à témoin bi ñuy présenté na ngeen arrêté yi xeex wi ma recevoir leen loolu la ñuy def te moom aussi am na jéego yu mu def ci suñuy revendication mais des na lu bëri donc ba tax na euh, syndicat moom revendication du jeex mais ak waxtu boo koy defee ak noo koy defee loolu mooy wax ji donc ànd itam fan yii di ñëw dinañu dinañu convier suñu grande rencontre boo xamante ne dañu renouveler instance yi dinañu aussi euh, mettre à jour plan d'action bu bees bi ak revendication plateforme minimale boo xam ne mooy nekk suñu feuille de route bu ñuy permettre en tout cas ñu déroulé. voilà Sidya Ndiaye maa ngi lay jaajëfal. maa may fàttali ne yow yaay vice président bu alliance And gësëm di syndicat boo xam ne dafay daal di taxaw ci lépp loo xam ñel na wàllu wérgu yaram yow yaa nekk itamit euh, njiital fédération général euh, de travailleurs sociaux. FGTS di la jaajëfal bu baax.